ato ku baax ki ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw man la Abdoulaye Niang dëkk Fass Boye nekk euh, président des mairies du Fass Boye en même temps ma nekk euh, président environnement ci quai de pêche bu Fass Boye bi waaw man maa ngi dëkk Fass ànd dafa sama doom dafa bokkoon ci gaal gi dem gi tëmboon fii depuis le 10 juillet ba léegi ba keroog la 15 mu feeñ waaw. acco loo ñu mën a wax ci gaal googu tëmboon fii le 10 juillet ba tey. waaw gaal googu tëmboon le 10 juillet mën nañ ni état bi def na ci faute bu rëy rëy parce que gaal gi ba mu am fukki fan ba am fukki fan ak benn jàpp fukk ak ñaar gaal yi ko mujjee woon tëmb yëpp àgg nañu Espagne moom nag àggul xamuñ ci moom dara fu nañu wër fa di laaj bi ñu dem dem ba gaal di bëgg am ay 20 jours ñu dem ba déplorer marinu Espagne bi marinu Maroc. bu Nouadhibou bu Mauritanie yëpp jóg ñoom def seen kéemtalaay kattan wër gaal gi ci géej yooyu gisuñu ko ñu def alerte état Sénégal xamal ka ni que gaal gi gi réer xamuñ ci lu mu ne gaal googu mi ngi ci waaxi Sénégal kon na marine Sénégal jóg def liggéeyam pour trouver gaal gi mais def nañ alerte defati mu mel na état bi moom daf ñu tax xam lu te lii du guleet ndax yàgg na am Fass Boye moom yàgg na am état def ko wan gannaaw. ci wàllu perspex leneen a ci yem Fass Boye moom boo xoolee sax ci wàllu infrastructure xam ni Fass Boye dëkk bu état wan gannaaw la yéen ñi ñëw képp tëli bi ngeen jaar ba ci fi xam ngeen ni dëkk bi boo déggee turu Fass ak ni mu màggee ak ni mu rëy ak koom-koom bi fay génne nga xam ni bu ti mu nekk région Thiès nekk dëkk boo xam mooy dëkk boo xam moo ëpp koom-koom ci région Thiès kon waroon ngeen waroon na mel neneen am beneen xar kanam ku bokkul ak bii ci wàllu gaa gi nag état def na ci faute bu rëy. mais nag am nañ ci gàcce goo xam ni parce que tey bu fekkoon gaa gi dafa teeroon Mauritanie wala mu teer feneen su boobaa mën na sax du doon fóotam mais ñëw bët Cap-Vert gii nga xam ne mi ngi ci wetu Ndakaaru 300 kilomètres de Dakar kooku état def na ci faute bu rëy waaye daan ci am gàcce ñoom parce que ñu nangu yow bu dee ay mala nga jël sa xaalis di ci def état jël xaalis di def ci ay mala ak lu ne ñu def ko mais ay doomu aadama ay bakkan lu ay téeméeri doomu aadama ak nangam ne ci géej gi nga nga nga war leen toppatoo. lijjanti leen xam sa doomu réew ñi seen yoon nekkul sax réew seen yoon nekkul ñëw nañu def seen doole wa def lu ñu mën lépp ñu def yàlla dogal gisuñu leen kon état daal ñu ngi koy interpellé waat encore mu mu mu mu mu geesu askanu mool geesu askanu nappa gi ndax lii metti na trop ku ñu rek dafa dalu sa kaw mais metti na trop Sénégal. Mm-hmm. bu delluwaatee ay at ci ginnaaw. lu mat ñetti at ci ginnaaw doo ngi woon ngeen fi média bi di déclaré benn bato boo xam ne. dafa ñëwoon fii seen quai de pêche bi mbëkk seen gaal yi nungu seen moteur yi yóbbu ba yi ne ko doon dàqal seen bopp interpellé woon ci état wuy wuñ leen lan la en fait lan moo xew waaw mooy li ma la wax rek ni moo tax man la c'est pas la première fois ndax bato boobu mënoon na ñëw ravager dëkk bépp mënoon na yàq dëkk bi rey ñi fi nekk ba mu jeex te kenn du jóg bato bi bu fekkoon li ñu wax am na licence de pêche sax dafa waratul am waxuma laa nag ñu signé licence bato yoo xam ne kenn xamul bato lu ñu doon ku ñu wax nga mbaal ngay mbaal ci biir géej nga ñëmb fii ci kaw xam boo taala salam day tàpp ci néegu néegu néegi nekk ci dëkk bi kooku xam nga ne yàq la tax jóg bi mu ñëwee yàq gaal gi ci guddi gi bi nga xale yéegee jóg nañu ñoom def li ñu man jéem nañ dàq bato mais borom fetal borom yaddu xeex ak borom fetal ñoo la ëpp doole daw nañ yóbbu seen matériel yàqaate ke état bi ñu interpellé kenn ñëwul kenn ñëwul boobu Alioune fi ne dem nañ ci moom wax nañu lu ne dugg nañ ci mais ba tey tegu fi tànkam dem na ba dernier moment ba nga xam ni loolu yëpp passé dafay doog a ñëw di indi ay ay compas xaalis nit ñi xaalis soxla wuñu ko nun soxla wuñu xaalis ci état li ñu soxla mooy ñu sàmmal ñu suñu géej gi aaral ñu géej gi les entreprises yi ñoo jël di ko joxe nun amaluñu benn njëriñ ndax gisuñu suñu bopp comme amul njariñ nag nañ ko teg ci suuf génn fi bateau étranger yi fi nekk yëpp même bato Sénégal tam ñu wàññi leen jox leen euh, euh, fu ñu war nappe foo xam ne dana sore ci biir géej parce que jën wi xale war napp bu ñu bëggee dem di mbëkkante bateau ñu leen di mbëkk ñoo deeg yëpp état du ci wax dara loolu yëpp lu metti la ñu ngi dund loolu bateau yi bis bu ne nga dégg bateau bu mbëkk gaal dara du ci mujj gisoo état ci dara te loolu yëpp metti metti la beneen bi ci mooy géej gi ressource bi dem na xale yi li tas yaakaar ba amatuñu benn yaakaar ci géej gi tax ñu jël gaal di dem ñoom xa doo liggéey lu mat 6 mois 7 mois nga yor jabar yor doom yor yor yaay yor papa war leen dundal nga liggéey 6 mois mënoo am 50 000 francs ci saako ceeb bi nga ku ne xam na li muy jar boo yoree 50 mu jeex boo sa doom feebaree doo ko faj mënoo dëkk ci may ma te xale faat xamuñu agressé xamuñu xeex du duñu ay bandi parce que bu doon loolu rek kon dégg koon ngeen leen ci leneen mais xamuñu loolu liggéey rek lañu xam bu ñu demee nag gis seen ay morom di jaar ci gaal gi di ñëw di tera tera seen waajur ñoom itam amuñu benn solution lu dul ay mool lañu fii xale yi jaar ba dem dañ naan nañ dem rek yàlla moo yor ñëpp accident ni mu amee ci kaw tali bi di ay nit ñu bari noonu la accident amee ci géej di rey nit ñu bari parce que ku warul dee doo dee yàlla moo yor ñëpp noonu nag lii métti na waaye muñ nañu ko bu baax ànd ceeg sant yàlla bu wér parce que yàlla moo nu jox xale yi moo ko jëlaat alalam rek la jëlaat. léegi ñi fi des te nekk ci hôpital ya euh, maa ngi dégg sànq ci bay ñu ni faj ga demewul noonu euh, te chaque jour ñu ngi leen di tàgge démb rek tàggewaat nañ leen ñett. tey ndax tàgg nañ leen kenn bi bu ngeen yeewoo tamit di teg leen ñoom fan lañ tool waaw nii may wax ak yow nii de wax dëgg man aw ma information si loolu waaye daal xam naa ni ña fa demoon ñi demoon démb bëgg a dem euh, bëgg a dem Maroc fële Cap Vert jóge nañu fii dem ba Dakar mais li ñu leen wax mooy vol amul jox na defe naa jox leen ñaari bis yoo xam ne ci la bi war am ti loolu du loolu état warul def loolu dafa waroon jël avion spécial jox leen ñu dem xool malade ya fa ne. ñu saytu leen parce que boo yafa ne seen lekk baaxul seen dundi dundin noonu fa nekkee baaxul faj ba tamit baaxul parce que loolu mooy rey xale yi am na ñu te ñu fa jot demaat ñu deeaat ñoo xam ni ñàkk a toppatoo moo tax ñu dee Cap-Vert ku ne xam na ni développé wul développé wul mais nag yàlla bu dogalee loolu yow mi nga xam ne sa doomu réew la dégg nga li ci xew dafa waroon jaral état mu jël avion spécial parce que bis bi ñu def ci def ko ci loo xam ne jaru ko bakkan doomu aadama gën foor loolu barka démb rek gis nañ li ñu def ci ay mala ay mala rek kon donc nit ñi ñëw ëpp ñëw ëpp doole ma acca bu ñu dellu see Fass en 2014 2015 Fass ni mu naatee woon. Mhm. ba Modou Modou bu jugee ci àll ba ñëw sax xale yi Fass wecc la. tey ñu demee ba Fass xale yi mool yi nga xam ne ay vrai capitaine gaal ñooy des biir géej lan la. waaw xam nga comme li ma la wax rek. nee naa la yaakaar mu amatu ci géej man mii bi ma bàyyee jàng dem naa géej ay lu tollook ñeenti at Mauritanie fu ne dem naa fa bi ma ñibbisee toog xool ne lii doxul dama continuer nekk ci di def métier mariage muy tane di tane mais fii may wax ak yow maa ngi ay oto waaye bu ma gisoon ku jënd ma jaay leen seet leneen parce que amatuñ luñ liggéey da ngay yor oto daw toog 3 mois doo yëpp jën fii yoon na fi mu ne wax ak yow nii 6 mois dinañ ko toog yoo xam ne ñu liggéey foo jëlee loo jox sa njaboot géej gii li tax 2015 2014 booba ressource bi mi ngi fi fu waay jógee boo ñëwee mën nañ la wecc fa tabaaraka macha allah ñëpp ki doon sant yàlla mais nag dañuy dem ba dugal ci loo xam ni wax dëgg yàlla da ci bokkul. muy lan mooy bateau yu mag yi ñu jël jox leen géej gi ñu jël fi xale yi war napp ñu nekk fa di fa napp di mbëkkante ak ñoom bu ñu yàqee sa alal yi nga ñàkk bu ñu la rayee nga perte loolu moo xam moo indi problème bi nekk ci dëkk bi yëpp dem nañ ba jën yu ñu daan gis gisatuñ ko bare na façon jën yoo xam ni heure yi daan ñëw mois de avril jëm mai heure boobu la jën daan ñëw mais jën yooyu kenn gisatu ko amatul parce que day dem jënu kaw ndox yi fi nekk néew bateau jël nañ ko te ñoom o oh, oh, ñoom jënu suuf la ñu war napp mais jënu kaw ndox yi doon ya boy ay jey ay og yeneen façon jën yooyu yëpp kenn gisatu ko kon daal da ngeen a bu bateau yi arrêté rek seen geej gi del fa bu ñu arrêté won licence bateau yi wàññi matériel de pêche bi surtout matériel bi cher na en même temps moteur yi ñu leen di jox baaxul moteur 60 yi baaxul bokk na ci yaq di geey yi beneen bi cher matériel mool bi cher na trop ñu wàññi ko bu baax ñongal geej gi ba nga xamni ben benn bateau dootul traverser fii li xalé war napp ñu jël kër yi ko di ko yóbbu te bato buñu gëna pé dañ koy yóbbu gal gi réer bato bi ka for pourtant bato espagnol la du du bato étranger la du bato du bato bo xamni ne dafa yeb ceeb wala diw dem bato bu mal jën la bato bu mal jën bu jóge Espagne mo daw ba dal ci seen kaw woo wir bi bi bi nek bi nek Cap mu jël ci len kon la nga wax moo li Europe ñoo fol moo di Sénégal am lolu nak gatché la léegi nag li xale war napp bu demee ba bato yu ñëw di ko tibb di ko yóbbu seen réew nun ñu ne fii mënoo gis dara loolu tamit ñaaw na yow boo jëndee dix mille franc essence képp boo demee géej wala kenn ba vingt mille soo demee boo dellu boo ñibbisee doo ko delloo si ana añ ba ana reer ana ndékki acoo gannaaw béy bu seen doom des nañ ci géej gi faatu nañ euh, léegi lu maa ngi gis ngeen ni jël seen i base seen i seen i nag nan ngeen waaje mbir mi waaw maam def ko deuil national parce que dëkk bi li fi dee ëpp na quarante personnes quarante yëpp doomu dëkk bi la ñu ñëpp ay xale lañ ñëpp ay borom responsabilité lañu ñëpp tamit ay soutien de famille ñu am na ñoo xam ne ñoom képp la seen yaay am benn bant bu góor lee lañ am am ñoo xam benn bant leen yàlla may ci àddina des nañ ca gaal ga am ñoo xam ni tamit da nga ñu ngi yor jabar yor yori doom am ñoo xam bàyyi nañ ñaari jabar bàyyi ay doom ñoom ñëpp ay soutien de famille lañu tey jii li ñu mën def mooy lu ëpp ñeent fukki nit mënuñu fu ne ñu dem fa dëj fa léegi nag ñu bëgg ko def deuil national lii yëpp nag état moo ko war def mais ñun xaaruñu ko ci. xaaru xale dañoo gedd ni état bu fi ñëw sax soxla wuñ seen dara de. waaw loolu am nañ ci parce que parce que euh, médecin après la mort la loolu mooy médecin après la mort. ndax yéen mag yi di ngeen dëggal loolu. man de ku mel na man ànd naa ci bu ma sañoon bu ma man ànd naa ci néew ma buñ fi ñëw nañu ñëw waaye man man ànd naa ci ni bu ñu fi doon joxe dara bu bu ñu ko jël parce que amuñ ci soxla parce que li waroon am bu amoon lii yëpp man na bañu yàlla nag moo yor dogal di dogal lu ko neex def ti lii yàlla soob mu am ñu sant ko yàlla di muñ nag xam ni yàlla moo joxe moo jël ci sañ nag mais dënnu xale yi nii ñu tànge ak euh, gendarme yi leen tegal yaakaar nga ni autorité buñ fi ñëwoon xale yi dinañ ànd ak dal non xam nga comme li ma la man wax xale yi ku mu doon yow di yow boo ko dékkoon ci robinet di duy bu feesee day tuuru xale yi problème bi yëpp bu doon gaa gi dafa teeroon Mauritanie wala mu teer Maroc kenn du def dara mais xale yi biñ nee gaa gi teer na cap ñu ni téeméeri nit ak nangam ñu ni 38 personnes ci des ci xale yi bay seen bopp suuf xam ni lii faute état la xam ni lii défaut bi état moo ko moo ko def ñoom nag bu seen nit nag bu fekkee àndatul ak sagoom daanaka moom mala ñoo yem wala mala tane ko koo moom lu mu gis rek bu ko jubee dana ko mbëgg même bu fekkoon keroog gendarme dañ fi ne dañuy dal seen kaw dañ leen di rey jeex mais il faut ñu dem il faut ñu dem parce que gisatuñu ñun ñi nga xam ne ànd ak suñu xalaat ak suñu xel defuñu ko buñ leen doon wax ñu dégg duñu mais nag mënoo ko parce que boo taxaw seen kanam sax ñu ñu dal sa kaw. ñu bàyyi la nga tàggatoo te fàttali ñu tur bi. man laa Ablaye Niang comme ni ma la ko waxoon rek euh, ñii dem day ñi ci ëpp ay soutien de famille la ñu. mu xool lu mu xam ni mën na leen ko jàppale mu jàppale leen ko man nag sama part taxul may wax ndax ñu ngi sant yàlla ñëpp ngi sant yàlla bu baax mais am na ci ñoo xam ni dana métti ci ñoom trop dana métti ci ñoom trop jërëjëf.